xam nga góor jigéen moom yal nañ ci yàlla musal ndax dafa alak aw dëkk te day alak àdduna day tooxal àdduna day indi aw bekkoo day indi tamit ah crise crise mondiale crise a gën a tuuti trans transement de transement de transement de terre tremblement tremblement de terre yoo xam damay kuti tremblement de terre loolu góor jigéen da koy indi ay askan ñëpp kon loolu kenn kenn bëggu ko mais ndaw ñi bañ defee loolu la moo tax ñu def ko du seen bëgg-bëgg de mooy góor jigéen bi commencé woon na yàqu benn beneen bi tamit bu ñu demee ci état tamit wala ñuy dem ci kalaame yàgg nañu kalaame te du mujj ñoom seen gis-gis mu ñu ñu ah, taal comme que moom foofu la toll ndax moom ci li ma dégg ci ay vocal yi ma dégg nee moom dafa ñoom bu dee ñu suul foofu waaye waa koñ ba ñoo lànk beneen bi tamit ñu daan na dox ca mbedd ma di def nu ko neex di dem marché gépp boobu taaluñu ko woon xam nga nag lu tax taaluñu ko foofu waaye comme que ñoom Sénégal xam nañ ni foo dem di kalaame tam te ñoom dañu am doole te boobu nga xamante ni mu ngi dox ci mbedd mi di dem dund gi di dox ay soxlaam te ñii xam nañ ne kii borom ñaari tur yi la lan moo tax defuñu seen wareef maanaam ñu génnee ko koñ ba wala ñu kalaame ko wala ñu yóbbu ko fenn foo xamante ni mooy loolu waaye dañuy bàyyi ba mu génn àdduna nga daal di koy sulli kon nga xamante ni yëgatul dara ci lu bëri nga daal di koy sulli ba pare di ko lakk aussi ah boobu xam-xam yi am na lu ñu wax moom nee ñu nit yàlla da ko bëgg nit loo bon bon jëmmu nit yàlla a mel ci lu boom xam-xam laa sukkandiku du waaye koo koo dégg bandam li mu lay waxaal mooy euh, nit nit lu foo la waaye comme que dafa commencé woon yàqu ba pare boo demee feneen tam du mujjee fenn loolu moo doon seen gis-gis ñu nangul lañ ko. ndax yow ànd nag yaa ngi ma yaa ngi ma bëgg a dugal fu sooy nag ànd ci àndu ma ci moom loolu du ma ci wax mais li ma li ma li ma la wax daal mooy euh, lakk bi moom ñu bàyyi rafetlu wuñu ko waaw ñu bàyyi rafetlu wuñu ko. mais boo ma mayee tuuti ma am lu ma wax mooy ñii bëtt seen baam yi fii ñooñu ñu tamit dañ nekk si sow bi gis nga góor da ngay baam fii waaw nopp ñooy bëtt seen baam fii seen nopp xam nga ñooñu ñu naan leen ñu nekk si sow bis bi wala nga jàpp si tubay di ko kii wala ngay dabala walla ngay kii ma leen di xamal ni artiste noble la artiste dafa war royukaay ndax boo xoolee suñu papa Ndiaga Mbaye ak ñoom waykat yu yàgg yooyu yëpp ndeysaan dañ daan joxe ay vocal yu am solo kon ñu bàyyi ci xel te góore wala ñu jigéen lan xalaat ne mooy pousser nit ngir mu doon li nga xamante ni moo di borom ñaari tur alal lay doon wala ragal yenn responsabilité yi. Euh, am na am na ñoo xam si alal lay doon waa am na ñoo xam ne alal moo ñu fëgg am ñoo xam si feebar la waaw yal nañu ci yàlla musal loolu dañ koy faj. am ñoo xam tamit dañuy nekk ci kër xat fi comme ni ma la wax sànq sa yaay ni la il nga joxe dépasse te amoo ndax yàlla mooy bind yamalaw gis nga juróom mbaam yi de ñoo bokk waaye tolloo ñu kon suñu yaay yi foofu laa wax ñu jàppale ñu si ndax góor jigéen la la cay dugal loolu tamit mën na ca bokk mhm. d'accord ko jotul kon euh, yaay yi wala sax yaay yi ak papa yi jël seen responsabilité si doom yi ndax léegi euh, réseaux sociaux yi ñoo yàq lu bëri euh, gis na nim saa yi da ngay dugg ci tiktok bi gis ay xale yu ndaw yoo xamante ni xamaguñu dara ñu woddu leen wala ñu maquillé leen wala ñu solal leen pirig di leen tàccul ñuy fecc yenn fecc yoo xamante ni dangay xool kii nga xam ne kii li muy def nii jëmul kër aussi waaw tiktok bi moom ak westegaam bi surtout tiktok bi moom moom moom moom day yàq ndax dangay gis kuy xaayee ko na nga ñaayee xa xappa sa mooy yéen jigéen ñi il ngeen am xàpp fii xam nga nu ñu koy waxee jàppale ci xam nga jàppale leen ma ci mooy. Ah, jàpp su ma waxee nga ne dama lay corriger loolu. Ah, waaw waxal rek waxal jàppale ma ci nu mu tudd jàppale wu yéen xam waaw. xam nga moo tax yaay yi tamit ak baay yi war nañu yar doom yi ndax yaay dafa baax gis nga yar réew mu amul yar réew moom alkaana lay doon ndax yar gi day dem ba ci tël yi day dem ba ci hôtel yi day dem ba ci élèves yi yëpp da da koy indi. moo tax nit yaral sa doom ndax ëllëg ndax gis nga doom bu baaxee lu ñu wax bàyyi jal bu bonee bokk bu bonee lu ñu wax bàyyi jal nday jalat kon nday dafa am wóoy si doom ndax euh, yéen yaay yi yéenay toog si kër yi bàyyi léegi talatuñ dara réew mi baaxul bàyyi dépasse nañ tal kon nday yi nag il faut ñu am respectable si doom yi billaahi ndax yi moom wax dëgg yàlla bu ñu xëyee 5 wàcc vingt heures kooku loo tal sangu tëdd nelaw yooyu sax xamaa ne doo sa jaar waaw